xam ne rek dañ leen a boomoon ci ay manifestation fii ci réew Sénégal Ousmane Sonko ma ngay dellu di leeral ne nag képp ku ca sa loxo laale woon rek bu yeboo nga waajal te xam ne ñu ngi ñëw ci sa kaw enquête jéglekaay nag ne conférence politique bi mu doon amal moom Ousmane Sonko ma ngay menacé élimaanu jëriñ bu Sénégal di xam ne ne ay topp daañu ko amal jëmale ko ci ñu bokkoon ci ancien régime bi coowal Prodac nag judduwaat na ginnaaw bi mu xam le ne la ko doon nëbb lépp nag feeñ na ndax dossier bi mi ngi ci taabalam yéene bi ne lu jëmit ci wàllu taskatu yi nag moom Ousmane Sonko daal ma ngay xam ne ni dootuñu bàyyi kenn muy làqu ci ginnaaw liberté de la presse di wax lu ko neex mbaa muy joxe ay xibaar yu wérul teggi ndawal gi moom faaw rek ñu daal di ko fiy jëlee yéene kaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay tiital gaay yi Walf Quotidien lu jëm ci wàllu disparition bu Didier Badji ak Fulbert Sambou ñu ñàkkoon seen bakkan ci manifestation yi moom Ousmane Sonko nag ma ngay xam ne ni daal lépp daañu ko leeral ba mu leer naññu ñu ngi ci wàccaayu nag abrogation boo xam ne rek dafa jëm ci loi amnistie yéene kaay bi ne coowal Prodac bi doxoon ci digganteem ak Mame Mbaye Niang nag moom Ousmane Sonko ma ngay dekkilaat boobee projet Vox Populi daal di koy feelu ne ca Grand Théâtre nag moom amal na fa show politique bu tàng jër moom Ousmane Sonko njiital Pastef dal na bu baax ci kaw ku jéggi presse bi ak ñii di magistrat yi ci ndaje ma nag moom Ousmane Sonko ma ngay daal di fësal projet yi nga xam ne rek pouvoir bi am na ko ngir doxal ko ci politique publique yi nga xam ne rek moom la ñu war a tàmbali ci weeru septembre muy ab vision bu jëm ci Sénégal fii ak deux mille cinquante politique sectorielle bi nga xam ne rek moo soxal filière yi yi nga xam ne rek moom la ñu lancé woon ci ayu bés yi ñu weesu nag jëmale ko ci kaw juróom moom Ousmane Sonko ma ngay wa sallam bés bi la jour daal di xam ni la ñu gis démb ca grand théâtre lu soxal nag effacé bor bi nga ni jeex na tàkk ci réew mi nag loolee dañ ko fiy jëlee rapport Prodac bi nga xam ne rek dañ ko ko doon nëbb mu ne nag jamono ji nag teg nañu lépp ci taabalam nag te daañu amal ab mbale ci magistrat yi teg fa ñi nga xam ne rek dañuy def seen liggéey ci anam bu jaar yoon moom Ousmane Sonko di ci yokk nag ne wax na jëwriñ ju ñu dénk wàllu yoon ngir mu daal amal liggéeyam ci ni mu waree Bougane Gueye di àddu ci biir yëglekaay bi ne ko priorité yi nag jamono ji nekkul ca Grand Théâtre source affaelu ko ne fi mu toll nii kay ñun ñëpp ñu ngi ci danger l'observateur ne génn gi nga xam ne rek njiital Pastef génn na ko doon amalub ndaje ca Grand Théâtre nag moom jamono bi di dal ci kaw tegaat ci suuf te na xam ne nag lii priorité jamono ji nag nekkul ca grand théâtre Mamadou Ibra Kane bu CDEPS ne faaw rek ñu daal di am ay homme d'état yoo xam ne rek dañuy am vision ak prospective jëmale ko ci ñii di taskatu xibaar yi la seglekaay na tuumay corruption nag gi ñu gàll ci kaw juge yi menace yi nga xam ne rek moom la ñu doon amal ci kaw conseil constitutionnel ak ñii di way taskatu xibaar yi Sonko ma ngay choqué docteur Yoro Dia di ko tontu ci biir yëglekaay bi ne ko na leneen loo xam ne moo gën a doon farata ci lii nga nekk Anta Babacar Ngom ak Bougane Gueye yi bàyyi lu ñu dara Ousmane Sonko léegi ko yëglekaay daal di des ba tey ci ndaje moomee nga xam ne rek moom Ousmane Sonko doon na ko amal ak jeune patriote yu Sénégal maa leen di xamal nag ne faaw rek ñu gën a taaxirlu ndax nag ab dëkk kenn mënu koo defar ci diirub ñaari weer kepp lu soxal nag dossier bu maam bay ñaan nag moom ma ngay xamal patriote yi nag ne bu ñu tëddee nañu nelaw ndax dossier bi jamono ji nag mi ngi ñu tegal ko ci taabalam l'info yëglekaay xëyee tey ji nag ci bor bi nga xam ne moo gàllu ci ndoddug Sénégal yéenekaay bi ne jomaay ma ngay topp ci tànku Macky Sall Sénégal gi nag nga xamante ni amee na ci marché eurobond bi nag lu toll ci quatre cent cinquante milliards président Bassirou Diomaye Faye ak ñi mu àndal nag doon nañu dal ci kaw Macky di ko attaqué jëm ci bor yi nga xam ne rek moo gàllu woon ci ndoddam waaye ñoom ñaari weer képp la fi def nag tàmbalee doxal ci marché financier yi yéenekaay bi ne mel na ni kilifa yi nag xam nañu bu baax ne bor moom mënta ñàkk ci wàllu doxalinu réew ndax loolee rek moo leen mën a dimbali ngir ñu daal di mën a amal seen ay financement politique Vox Populi yi xëyee tey jii gramme cocaïne nag moom la douane bu Sénégal daal di saisir waaye teg nañu loxo ñeenti doomi aadama ci diggante Popenguine ak aéroport drogue boobee nag libération ne bu ñu ko xaymaa toll na ci benn yu toftal juróom benn milliard yoo xam ne rek dañu koo nëbboon ci ay saak yoo xam ne rek jinjeer la ñu ko defoon waroon koo génnee ci réew mi l'observateur ne lu jëm ci teg loxo gi ñuy teg loxo wàllu drogue beeg cocaïne bi kay AIBD ma ngay jël wàllam ci dose bi jeexale yëglekaay ak wàllu tàggat yaram réew mi bu coupe du monde yéenekaay bi ne Sénégal am